dal leen ak jàmm ci leeral point net te nag ñu ngi daal di xëy rek ci xëtam bu njëkk Ziguinchor après les affrontements les quatre militants de Sonko blessés sont li nga xamante ne rek mooy euh, fële ca Ziguinchor gannaaw rek ab jàppante gu am ci diggante Pastef ak ñi nga xamante rek ñoo ànd ak Doudou ñoom daal ñoo daal di jàppante ba ti lu toll rek ci ñeent militant wu Pastef ñoom daal ñoo daal di am ay gaañu-gaañu gannaaw rek daal gi ñu daal di jàppante ak loola ci ab convoi bi nga personnes yi nga xamante ne ñu ngi bokk ci euh, Pastef ku ca mbir ma mën nañ ci lim yi tamit ki nga xamante ne euh, Ali Badji ki nga xamante ne rek ay atam ngi toll ci euh, trente une ans kii di wuyoo ci turu Ismaïla Danfé moom it mu ngi am vingt sept ans ak ki nga xamante ne tamit mu ngi tudd Abdou Mané moom it trente et un ans la am ci jël mu ngi tudd Mamadou Diaw moom it mu ngi am quarante ans ñoom ñooy ay ñeent blessés yi nga xamante ne rek ñu ngi bokk ci camp Pastef daal lañ leen rek évacué ci hôpital régional bu Ziguinchor rek pap sànnante xeet bi nga xamante ne rek convoi bi nga xamante ne Ousmane Sonko ca la bokkoon mbiri daal daal di takkar naa si ba mu daal di reculer yi tamit di xamle rek ñi nga xamante ne mooy ay élément commissariat bu central bu jigén Ziguinchor ñoom daal dañoo daal di rek eh, taxawu mbir ma ngir rek situation bi ni mel mu ñakk fii